فاز مقاما لم يكن لغيره بل فاز كل فائز بخيره مقام فوق المقامات الأولى صلى عليه من أدى وأدى ما خطوط الكفر والأوزان والشرك والنفاق والعصيان دام اتباعه bëri yoo xam ne sant sos na ko Mbàkke Kajoor ak Touba Njaambur lépp daan fa bay di ko dundal di jàngale tarbiya jàmbaar ji lislaam jooju nga xam ne dafa nangoo tënkoon ci ak taalibe taxawoon nekkoon ci ginnaaw magam ju baax ji sëñ Cheikh Mbacke Ahmad sëñ Cheikh Mbacke faat ma nga xam ne mosul juyee moom dara ci benn ndigal ba ci sëñ Mbacke Madina ba ci sëriñ Aliou eh, tënkoon ci ak taalibe nga xam ni bi fi Cheikh Abdou di bàyyi ko ak farloom ak ndimbalu suñu borom moo tax mu jël njaboot gépp dem ci Cheikh Saliou bu foofa ca bis ba la wàcc liggéey loolu nag di ak farloom ak taalibe ak suñu borom defal kon ñu koy ñaanal yàlla suñu boroom dolli ko xéwal ak yërmande li mu liggéey lislaam suñu boroom fay ko ko fay ko ak njabootam itam di sant sëñ Abdou Karim ndax ku ñëw fi tey xam ne dara wàññi ko fi lépp yokku na. kenn ku xam ni ko yàlla bindee nga xam ne boo ko nee jàkk sa xel day dal ci melokaan bi nga xam ne melokaan bi ñu soxla muy ab sëriñ kon ñu ngi koy sant moom it di ko ñaanal suñ borom dugal fanam sant mboolem ay rakam sëñ Cheikh Abdou Aziz sëñ Sidi Mbacke sëñ Basirou ak ñi nga xam ne ay rakam la ñëpp te ñoom ñëpp ñu def benn say topp ci ginnaawam eh, kon ñu ngi sant sant taal bi nga xam ne ku ñëw ci bis bi xam ne yokku na di ñaan lépp loo xam nañ ko suñu borom nangu ko bi barakati rasulillahi alayhi salaatu wasalaam jërëjëf المقام فوق المقامات الأولى صلى عليه من هدى وهدى ما خطوط الكفر والأوزار والشرك والنفاق والعصيان دام اتباعه ودام أخوه فدام خيره ودام سخوه أرسله رب العالمين مبشرا ومنذرا للآخرين لا تلد la وكفني بجاهي كل رداء لهو لله والسحابة جدي صلاة نور الإجابة لهو وللآل وللسحابة جدي صلاة aousubillahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim xala rabbana salamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna minal xaasirin ba baax du asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw ba ni sant yàlla julli Seydina Mouhamed Seydina Mouhamed sangub sang yi di ñaanal Serigne Sidi Mokhtar suñu borom yàggal ko fi ñuy ñaanal suñu waajur Serigne Abdoul Aziz suñu borom yokki leeram te taal ñu si barkeem bisub Serigne Abdoul Aziz nag liñ ciy wax du yaatu waaye nag wax ci itam yomb na ndax sëriñ Abdou si day koo xamante ne ci royukaay la ci wet gu nekk su dee gëm sëriñ Touba gi néew na nit di ko ci jot su fekkee liggéey bi la néew na nit di ko ci jot su fekkee ne fonk mbokk gi la néew na nit di ko ci nit ko ci jot su fekkee ne ñeme njaboot la néew na nit di ko ci jot te fekkante ne yërëm doomu aadama yi la moom itam ci lim si amoon tam kenn du ko si jot liñ si wax nag mooy fa ñu tàmbalee rek mooy si taalibe gi ndax ban àggee si taalibe gi mooy njabootu Serigne Touba gi ñu jëfandoonteel gépp kenn ku nekk mën ngaa taxaw ni mën nañoo taxaw ni Serigne Abdou si defal na lii diw defal na lii diw defal na lii diw lu njëkk li rek mooy wax taalibe gi mooy mas naa jiitlante ak Serigne Abdoul Ahad jamono jooy Serigne Fallou nekk fi oto bi mu yoroon gën oto Serigne Abdoul si saayir chauffeur am dem ba di ko duble ni kii di oto Sëñ Abdou la mu ne ko yaa sopp lon nga koy toppatoo ba xam moo ko yor wala yoru ko oto ma bu ko doublé bi mu ñëwee ba ci kër gi daa wàcc oto ba jël sa wala ñaari mag ak taalibe jox leen oto ba ak chauffeur ba ni leen yët leen ko Sëñ Abdou Lahad ni ko oto bi soo ko yortul dootoo ko doublé kon foofu la ak taalibe di yem te tey jii fi jamono toll ëppalante gi ni mu doyee suñu bàyyi bu ndaw suñ ko ëppalee suñ ko ëppalee alal fuñ ko toll dañ ko koy wan niñ koy soo ko yoree oto ko doublé soo soo koy soo koy romb da mu gis la kon nag sëriñ Abdou Aziz néewoon na ci wet gu nekk ku mel ni moom njàmbaar gi li sëriñ Touba sance woon Touba noonu la sance ay dëkk ndax dafa bare nit danaan dem ci ab dëkk fekk fa ay nit dëkk fa ak ñoom moom nag dëkk yi nga xamante ne si moom la sanc yëpp muy benn muy Bousra si ndigalu sëriñ Modou Moustapha ba mu ko sanc dara néegu fa moo fa nekk la fa nekk lépp moo ko fa def nit ña fa nekk moo la fa yóbbu yor leen dund at ban mën a bay mën a yor seen bopp déwén soog a mën seen bopp ba muy sanc mbaam jigaan noonu ba muy faj sanc jumaada noonu dañu sañ ci Touba ñaani sa Tamba noonu la fa def kon nag kooku yaakaar naa ne wet gu nekk royukaay la si sunu diggante ak ñun si diggante ak ragal yàlla ak ni ak ak ak fi jamono toll dañoo mas di toog di waxtaan mu ni wax mënuñu mm, gone yi de man dama leen a bëggal nooflaay ñu ne ko lu tax mu ne nooflaay bi ma leen bëggal mooy damaa bañ ëllëg ngeen am coona ñu ne ko ndax lan mu ne ko mu ne li tax su ngeen am su ngeen xëree si pexe rek da ngeen am coono kon bu pexe instrument seytaane la ndax alxuraan moo ne innama najwa mina seytaan yi comme alxuraan moo ne innama najwa mina seytaan yi nag kon bu leen xër see pexe waaye nag fa pexe yam daa am ndax iblis da lay may pexe nga daw ba na fa ta fa ta xel jeexe nee na mu jot soowaat la meneen xel nee na nga jógati noonu ngay def ba sàngoosu la fa tàmbalee lu mu doon mu ne ñaan gu nangu ñaan gu nangu googu nag mu ne dafa am ay sart ñu ne ko sart lan la mu ne bu njëkk bi mooy yow mi ne ñaan loo na nga bañ a doon ko yàlla jéppi ndax su la soo doon toogoon fukki at di ko woote du la faale ndax nit rek su la jëppee doo ko soo koy woote du la faale mu ne benn mu njëkk bi mooy yow mi ñaanlu na nga bañ a bon doon ku yàlla jëppi yow mi ñaanlu su la yàlla jëppee su la àddina sépp doon ñaanal tam suñu borom du ko nangu kon tam waxe seen ab des ak jëfam jooju yàlla nañ nañ koy bàyyi xel nañ koy bàyyi xel bu baax a baax ñun ñu fi des ndax fàttaliku waaju baax loolu la jëriñ ndax ña nga xamante ne fàtte woon nañ ko tam seen loolu moo tax suñu diggante ak Serigne Abdoul Aziz Bara moo tax bisam bi itam jaral la ñu le gënal la ñu le ne amuñu lu dul moom moom rek lañ am euh, jëndewuñ ko daraati nag ndax ma euh, lim ñu defal amul kuñ ko ma amul amul kuñ ko mënal nit nag su la mënalee loola mënul loo mënul sa bopp wala mu fexe nga gën sa nga nga nga gën koo war a gën kooka lépp lu tax ci moom lu ñu koy tudd rek war ngaa fonk loola loolu moo dox suñu diggante Serigne Abdoul Aziz jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Abdoul Aziz nekk kenn ci njabootug Cheikh Mamadou Lamine Bara Khadim Rasoul li kenn nit nag ci njabootu sëriñ Touba Xaadim Rasul liggéey ci yoonu murit liggéey bu rëy boo xam ne ñëpp gis nañ ko teg nañ ci seen bët tey jii ñu di ko fàttali sëriñ Xaadim ñëw ci këram gii di fi màggal waajuram sëriñ Abdul Aziz bi ñu xëyee wàcce nañ fi ay kaamil jàng fa alquranul karim ak ay xasida mbokki taalibe yi bàyyi nan Louga ak feneen ak feneen fépp ak daayira yi ñëw fii nii di ko ziar si li ñu xam ne daal moom lañ leen di digal mooy li nga xam ne moo tax suñu borom bind ñu fi te bàyyi ñu fi mooy jaamu yàlla ak liggéeyal Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nan sax ci jub ak nangoo liggéey te sax ak ci ak taalibe moom ku nekk ci ak jub moom loo nekk ma nga ca waaye ci safaan bi mu bàyyal ak sa bopp jub rek la woote ci la nekk li ko fi maam bàyyiloon ci loolu rek la nekk muy jàng alxuraan nekk ci siraatal mustaqiima képp kum àndal ci loolu rek la lay digal kon daal bis bi fi ñëwee dañuy fàttali ko jàmbaar jooju de Serigne Abdoul Aziz ay jàkka defar ay daara defar ay doomu aadama taxaw njabootug Cheikh Mouhamed Lamine Bara Xaadim gi ndax bi fi Cheikh Mouhamed Lamine Bara jógee. ñëpp ci ak njabootam ay tuut tànk rek lañu ah sëriñ Abdoul Aziz moo leen taxaw jàngal leen teg leen ci aw yoon sampal leen ay kër ba seenu njaboot màgg mu jël seenu njaboot yar leen jàngal leen sampal leen ay kër te kenn ku ci nekk la war ci yow sëriñ Abdoul Aziz Bara def na ko ci yow fépp ci njabootuk Cheikh Mouhamadou Lamine Baara kër goo fi dem fekk fa Abdoul Aziz te loolu li ko waral sëriñ Aziz Baara moo ko liggéey loolu nag nekkoon ci moom moo nekk ci doomam ji di sëriñ Xaadim Mbàkke moom daal bëggul leen de lu ñu tegu ci yoonu siraatal mustaqiim fas yéenewul tamit di dépendre ci kenn li ci yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba ndax xam na li ko maamam sëriñ Touba xaadim rasul defal xam na cër bi mu am ci kër sëriñ Touba loolu nag moom sëriñ xaadim nee na du ko faye benn yoon te du ko caaxaane itam ndax xam na nag moom mooy kan te boo ñëwee fii ko xam ndax jëfinam ah ay jëfam bokkut ay wax moom day jëf rek jëf rek la xam moom ci la nekk sëriñ Abdou Sibara waajuram foo dem ci Sénégal muy Touba ñaan ak jumaa daak foo dem foo ko fekk këram ngay dal këram lay nekk moom mi itam fu muy woote ci këram nga koy fekk rek yal na ko yàlla suñu borom barkeel bu baax taalibe yi nañ góorgóorlu bu baax te tegu ci yoonu siraatal mustaqim te góor góorgóorlu bu baax ci bennoo jàppante jàppalante te dimbalante te xam na àddina du dara de te lépp day jeex lu baax rek fi am njariñ yal nañu yàlla saxal ci ak jub sar saxal ñu ci yoonu siraatal mustaqim lépp loo xam ne waaye mi ngi ko fiy sàkku si yal na ko suñu borom defal. lépp loo xam ne nit mi ko fiy dagaan si ak lu mën a doon yàlla suñu borom faj aajo yooyu yëpp ci barkab Serigne Touba Xaadimu Rasuul jërëjëf amin Mbàkke amin dee leen wax amin amin amin balay sa amin jërëjëf muy Touba Mamadou Lamine Mamadou Lamine Ba ndam baay saxaay muy toobaay Modu Lamin Modu Lamin baara si xaadim baaraay maamam baar muy toobaay Modu Lamin Modu Lamin baar maam baara xidmatul xadim baar muy toobaay Modu Lamin Modu Lamin baara baara ku la way am ndam baar Lamin Mamadou Lamin Billaahi Mamadou Lamin Mbàkke jarawaay ba sopp Sëriñ Xaar amiin bëgg naa la baara yow baara sopp sëriñ baara baara